salaamaaleykum mbokki xarit yi nga xamante euh, ngi fii nga xamante euh, euh, inawal yàlla ginnaaw bi ñu sante yàlla julli jonante bi ñoo ngi sant suñu ñaari waajur ñoo sant waa yëmbal fi ñu yeewoo tey di di di di nuyu suñu gars yi suñu dëkkandoo yi di nuyu suñu fans club bi ñu nekkal di nuyu sama gars yi ci saalu Jean ak euh, Zo mais toog sama gars yi ma nekkal saal maa ngi bëggee ñëpp maa ngi lay bëggee même yow mais xëy na wu ñëw pour jël si ma tey quoi. waaw booy séeréer mi ngi ci ruqam di liggéey comme comme ni nga ma xamee woon rek euh, démb comme ni nga ma xamee woon Pikine yàlla def léegi ma yeewoo yëmbal mais comme ni ma gars yi xamee woon ci entraînement. ci boxe bi ci côté bëre bi lépp moo ngi fi mais problème bi mooy euh, li ma gën a metti mooy dañu nekk ci écurie boo xam ne muy école de lutte Boy Niang dafa am tuuti dañu am tuuti ci làmbu tardement te te dara yóbbawuluñ ko lu yaakaar naa mën naa jàpp ne lépp écurie bu ma nekk la ñoom laay teg toor bi quoi parce que heure bi waroon naa dépassé fii ci làmb waroon naa am suma ay nawle lu ñu am ci làmb ñoom saa kees tey fi ñu toll ci làmb ñoom Boy Niang bi ma nekk ci ginnaawam ñoom ama tey li ñu am ci làmb heure bi waroon na fekk ma am ko parce que yàgg naa ci làmb mais jàpp naa ne làmb daal jamono bi pertement rek laa ci laa ci amee man amaguma ci dara daal waaw école de lutte boo ñaa dama fa yàgg depuis combat mbiis ay kon les deux saa ko jor bu ma koy lim tey fi laay fanaan combat yi ma ànd ak Boy ñaa bari na trop yàgg naa fa depuis ma nekk deux mille deux mille deux mille quinze laa fa nekk ba léegi deux mille quinze laa nekk écurie Boy Niang ba léegi maa ngi nii euh, carrément li ma bëggoon a wane ci làmb wane wu ma ko non déplacement bi mooy munu ma munu ma bootu ci ginnaaw mbër mi tout le temps ma nekk ci sam ci ginnaaw booy ñaa mu yor ma yoreel ma lekk yoral ma lépp ma boot rek ci ginnaaw il faut ma jéem a isolé wuti sama yëfu bopp jéem a faayatal sama bopp parce que góor yàlla xasee nekk góor yàlla nekk jeune war a yor soxna war a yor doom da am loo xam ne yaa koy xeexal sa bopp. mënoo di bootu chaque jour ci mbër mu mag mi pour moom mu yoral la lépp day métti ci ci côté moom mu yor famille mu yoraale la. day métti ak làmb léegi ni mu sooxee. comme làmb na nam doon doxe ak euh, bu njëkk ni ko Sénégal yi doon dunde par rapport ak jamono yu ñu nekk waaw léegi làmb dafa sooxe bu baax a baax ñun ñi nga xamante ni bi ñu benn métier làmb rek la ñu yaakaar te làmb rek lañu am bi ñu waree jàngi métier dañoo ñëw dugg ci làmb ji nekk ay xale di di mbapat yaakaar làmb gis nga tey làmb tey yaakaar naa làmb tànki ginnaaw lay wane parce que gisuñu benn avancement bu mu def instant yi promoteurs yi daan tëgg xaaj bi gisatuñ leen euh, euh, mbër yi xaaj bi tukki nañ yenn mbër yi dugg nañ ci gaal yi dem parce que amatuñu fu ñu jëm amatuñu yaakaar sama classe gaa ngi nii kañ laa gëj a bëre toog naa quatre ans yoo xam ne bëreewu ma depuis sama combat ak Fall Yarax laa gëj a bëre. non si ñu ngi doon wax suma combat maag buur tan bu mid naa mais yàlla dafa def boobu ba léegi déggaatu promoteur bi waxaatuma ci dara. looloo tax daal affaire yi metti na trop foo takk mettiwaay bi daal weesu na ko parce que ñun yaakaaroon dara lu may làmb yaakaaroon na làmb euh, dinañ danañ ci am lu nekk mais gis nga làmb daal ba léegi sa waay waaw boo ñaa bër ci démb la jóge sama gaale yàggul semaine bee ñëw na fii ba ma ne ko waa mbër léegi loo xam ci affaire yi mu ne ma moom bu sañoon euh, heure buy bëre ma bëre moom moom moom wax loolu mais daal yaakaar naa daal affaire yi daal ci côté manager la mën naa nekk ci côté manager équipe bi nag euh, li ma war a def lépp ci équipe bi heure entraînement bu jotee maa ngi dem entraîné ji heure euh, bu nu wootee réunion maa ngi dem di ko teewe lu ñuy waxtaani ci équipe bi dinaa dem participer mais pourquoi booy Séeréer nekk école de lutte Boy Niang ba léegi toog ay quatre ans bëriwul mais loolu dafa métti te yaakaaroo dara lu may làmb hmm, booy ñaan nag mu ngi waslu aaka ci ñun parce que bu bu jëlee combat dina yëkkati la mu yoru kus néew jox ko ñun mbër yi nga xam ne ay poids lourd lañ nekk ci am ku nekk mu mosal la dara mais nag mënul mënuñu dëkk ci loolu. Euh, merci. Euh, nga xalaat ni moom bu ko defoon tey waaw Matar Ndiaye la manager moo yore sama licence depuis ma bëri sama premier combat ba ni ma bëree grand combat contre Aldo sëñ Mourou ñaa ko tëggoon combat yi ma bëri yëpp moo ma ko jox mais jamono bii daal dafa yéex daal ci affaire yi dama dem ba bëgg a sax ci làmb ma ne suma gars yi dama bëgg a bàyyi bëre jéem a xool beneen solution bu ma mën a amee. mais làmb daal amatuma ci yaakaar te man dama am doole dama dama am doole xale laa maa gars yi si làmb ji képp ma si doole am naa doole mën na maa bëre mën na maa xeex te du ma ragal pikin laa yoroo ginnaaw raay waaw te ragal du jéggi booy séeréer ku ko xam-xam ne du ragal booy ñaa fu mu mës a dem maa ngi ci kanam di xàlli te du ma rigale waaw ñoom waa pikin xam nañ lu baax li may wax. non non comme ma ñëw yëmbal moom euh, yëmbal euh, sama waajur bu jigéen dafay nekk dama ñëw pour jege ko parce que nit ki amul lu may waajuram bu jigéen te man dama bëgg suma yaay yaakaar naa euh, jóge Pikine ñëw gën a jege suma yaay nekk ci wetam bu ma xëyee di ko gis di sàkku ñaanam moom ma gën a sax làmb dama bëgg suma mère quoi moo tax waaw suma yaay moom ndigalam ci laa ñëwee yëmbal moom mi ngi fi station yëmbal mo ne ma ñewal nga jégué ma xalé nga go dara mais lamb dal gisaguñ ci suñu bop li mo la mëna wax école de lutte Boy Niang nag euh, am mënuma leen a mënuma leen niko olof di waxee mënuma leen ñax mënuma parce que boña ku bax la comme li ma la wax rek boña ku bax la te dafa am fu ma papa papaam dégol suñu papa sax dégol la wax moo yore école d'élite booy ñaaw yi ñu nekk fa ak suñu entraîneur xës xam nga ko seex nekk fa ak grand line nekk fa ak euh, ñoo xam ay boroomi xam-xam lañ pikin ku xam ne pikin ku fa jaar jàng fa bëre bëre du la jaaxal aar du la jaaxal parce que aar fa la samp baax boo xoolee champion yu bari ku ci mel ni Tyson ku ci mel ni Jules ku ci mel ni ñoom Pape Ngom magu Eumeu Sène ku ci mel ni Pape Diop mbër ku ci mel ni Dégol ay ay ay ay ay ay ay ay référence fa nekk yoo xam ne dañoo xam làmb waaw ku fa jaar tar bu fa làmb da ngay mën a bëre mais lan mooy problème mu man bëréew ma lan mooy problème bi laa xamul parce que man li ma war a def li maa ngoy def waaw mais promoteurs yi nañ ci jàpp ah teguñu ma euh, sama sama combat ñorul sama waa écurie waaw loolu la loolu nag euh, xaw na ma jaaxal moo taxoon sax euh, comme man yàgg naa fa nekk ci ginnaaw mbër mi mbër mi daf ma ji ngor boo ñaan daf ma ji ngor goo xam ne tey mënuma hmm, mënuma wax ne carrément tey boo ñaa def na ma nangam lu bon parce que lim lim ma wanoon ba léegi loolu laay image boobu laay gisa gis si moom mais staff bi dafa am ay ay ay défaillant staff bi am na ay ñoo xam ay yàqkat lañ waaw ñooñu nañ leen seppi ñu sànni ñu xool ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo yàgg dund ak mbër mi ngor bi dara amul bi boo ñaa nekkee ci jamono mbapat di bëre boobu bëreegul ay millions ñu nekk ak moom bi dara amul boobu boo ñaa mi ngi dëkk cité cité cité 2 di luye ñu nekk ak moom ci kër ga ñun ak moom di ànd ak moom depuis combat Mbiss Akon les deux ñu nekk ak moom yorutoon ay millions tabaxutoon tabaxutoon kër ñu nekk ak moom muy metti ñuy daanoo ko jog ba tey ni mu tabaxee immeuble kon ñun euh, mbër mi dañoo war a geesu ñun waaw mm, waaw mm, li ma merloo mooy li ma tardé ci làmb mais li ma li ma ta li ma li tey mën naa jël toor bi yépp teg ko ci côté istaf bi mm. waaw mais tegu tegu teguma ko ci côté mbër mi teguma ko ci côté Boy Niang ne moom moo def waaw waaw isaf bi ñoom xam nañ seenu bopp ba pare sam manager Matar Ndiaye mi nga xam ne moo ma yor moom it dafa seetaan du dëgg ki ki ki ma gën a gën a jox toor mooy Matar Ndiaye moom partiwul carrément ci suma carrière te mooy sama manager sama licence moo ko mas a yor ba tey jii may waxee géw nii Matar Ndiaye moo yore sama licence mais dafa seetaan entraîneur coach xës jàppul jàppalewuñu ma jàppalewuñu ma bu ñu ma jàppale woon dinaa weesu fii lu ma bëgg a def euh, mooy mooy ñu ñu jàpp rek ñu jàppale ma parce que yaakaaruma dara lu may làmb waaw damay moo tax euh, balaa may quitter di dem beneen écurie Eh, il faut que wax ko ñu dégg ma xam li ma naqari waaw. kan ngay tey jii bu may wax damay wax ak ki nga xam ne mooy entraîneur du écurie bi muy Père De suñu entraîneur parce que ñun ñëpp moo ñu moo ñu boole boot ñun ñëpp mooy suñu papa moo ñu dalool ci écurie ba ñun ñëpp nañu boot comme ni mu bootee doomam ñu ànd ak doomam ñu liggéey comme ni ñu daan liggéey parce que ñun ay anciens lañu foofu booy séeréer ancien la école de lutte Boy Niang loolu rek laa bëgg mu mu gën a jàpp gën ñoo uuf téye ñu jàppale ñu tamit parce que ñun ay doomam lañu quoi nañu xoolee comme doomam rek quoi su ko defee ànd bi neex yàlla dimbali ñu jàppale ñu li ñu wut mën ko am parce que parce que ñun dañu bëgg làmb dañu bëgg bëre dañu bëgg sport quoi te dañu bëgg suñu doom ndey Boy Niang parce que war nañu ngor goo xëyan tey pour ñu pour ñu wan ko ginnaaw di dem ci beneen écurie di yeewoo di ànd ak yeneen mbër suñu image ak ni mu mel Pikine ak ak ni ñu ko jaayee Pikine bañ xamee ñu Pikine suñu lépp ñu defee ko Pikine euh, bëre ñu tarbiwoo ko Pikine euh, suñu image ñu jaay ko pikin suñu combat yi jot a bëre yëpp Pikine lañ ko ngémboo kon ñun pikin lañu am bu ñu demee tey ba ba suñu xel di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu xelal pour ñuy dem ci beneen écurie Euh, di topp ci ginnaaw ginnaaw beneen champion ñëw dajeek mbër mi esaat booy ñaam mi nga xam ne moom lañ nekkaloon loolu suñu yaram dana ci daw rafetluwuñu loolu mais ñun ñi nga xamante ni bi ay ay ancien lañ foofu nañ ñu téye nañ ñu téye bàyyi ñu ñu liggéey ak mbër mi parce que ñun jig nañ booy ñaa ñu ne ñu wax ci ñun ñu bàyyi ñu xel parce que ay dañoo yor ay waajur war leen a dimbali yor yaay yor papa war di yóbbante dëkk ba war di jënd dund di yóbbu suñu waa dëkk nekk ci ginnaaw mbër mi tamit nañ ñuy bàyyi xel ñun mbër yu ndaw yi nekk ci ginnaaw Boy Niang ñu ñuy wutal ay combat ñuy bëre mbër moo gis mu découragé wu ci icri rek dafa bëriwul mais su may bëre damay resté damay toog waaw damay gën a am encourage toog liggéey ànd ak moom liggéey mais toog bëri woo fa hmm, di contact rek saa waay loolu dafa métti